nag tey daanaka mooy visite bi mujj ndax tey moom mu ngi toll ci cëppaandaw ji ndax projet bi mi ngi jeex le 31 mais la war a jeex pour man liñ ma gis dal na suñu xel ndax liggéey bi mën nañu daal egg na daanaka ci des mooy suivi bi suivi bi nag loolu autorité administrative bi daal ñu ko def ONAS dina ko def mais gox xaar yi nga xamante ni aussi ñoo concerné wu dañ ko war a def maanaam fexe ba fi ndox mi di génne nag pour dem fii ci géej mu bañ a fàtt parce que bu fattee rek bu amee suuf ba fatt ndox mi day delluwaat fa mu jógee te bu boobaa mën na créer ay inondation donc wàllu woowu ñu ngi ciy ñaax bu baax maire yi d'ailleurs ñoom engagé wu nañ ci pour que ñu am ay brigade yoo xam ne dañuy xool exutoire yi fi ndox miy génne ba xam dara mën a koo fatt pour terminer daal wax ni ñu ngi sant yàlla bu baax di encore une fois félicité jàpp ci liggéey bi yëpp euh, nga xam ne ni ko président Macky Sall euh, laajte woon demandé ko soxla ñu def ko